Sénéinfo Touba wax waxaat de du bëri wax bugaan gay dana ci turbine yéen kaay naan leen maag yéen ba jant bi fay feek tontu wu leen gën di andi ay gindi di leen ko ronkos nank ngeen koy encaissé bés bu ngeen génnee leeral sénégalais nag ma di nuppi turbine yéen kaay naan ko lu mu mu ni ko 98 milliards ci rek mu ni ko xanaa 98 milliards yi scandale bi gars yi ne duñ ci wax tey nag laa di gën a andil ay firnde yu wane ne dëggantaan xaalis bi mi ngi fii ci réew na ci ne gën na rëy ci nguuru président Macky Sall ndax saa si tembe waxtaane ne juróom ñeen fukk ak juróom-ñetti milliards yoo xam ne des na ko luubal xaalis bi nag ab projet la woon ci wàllu plan spécial ci wàllu développement la tegu 2023 laal 2027 te naan leen bii bu leerul am na benn 400 milliards boo xam ni moo war a dugg si bu ñu leeralul bii ne bee luube it lay luube rek xaalis bi man la dañ koo leb naan man tey laa leen di nettali jaar jaaru xaalis bu ba yegg si si réew mi dañu koo lebi bitim réew te président Macky Sall ci boppam moo signé lettre de garantie bi tax nag ñu daal di lebi juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards googee bugaan ne ma le 6 yëg naam yëgul mu ne ma yëgul tinul ana xaalis bi mu ne ma dañ koo jël def ko dépôt à terme mi ngi nag ci FBN banque ci ab compte privé naan maan numéro compte baa ngi nii intérêt yi génn na ñu ngi ko def ci numéro compte bu commencé 01 bii te naan maan ba fii nag procédure bi nice waaye ban jotee ci xaalis bi ci compte yooyee ba nuppi dañu koo jël daal di koy viré ci compte privé xaalis bi yëpp laa ni la 98 bi moom la ñu viré ci compte privé daal bépp règle bu transparence coow li coow li ci pëndub teen ba gaañi amul baaga trésor public moo waroon jot xaalis ba gisul bugaan naan leen bu ca waxul saa si téembe ñeenti téeméeri milliards war na ñëw dooleeku wàcc ci projet boobe gaaye naan kon lan moo tax demoo porter plainte wax ci lii mu naan leen nan la may jëriñ ndax nag saa si téembe goro national intouchable la dee su ko laal ci mim réew waaye nag danaa wax ndax intere sénégalais yi bu jaree ma jaar nungu si nit baax na waaye dinaa wax su soi naan sàcc nañ 98 milliards bugaan gay la amee l'évidence yéene kaay naan naan mante naan Mansour Faye génnal wax goro national génnal nga leeral sénégalais yi ana sunub xaalis Dakar Times naan Bougane Gueye ngay def ay révélation de dikk na ci 98 milliards yi fu mu nekk Walf Quotidien naan fa mu tegoon tànkam la ko teg ba tey naan leen juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards ngeen luubal daal di yóbbu ci compte privé xaalis boobee sénégalais ñoo ko moom génnee ko mbaaju tokaas tribune yéen kaay naan naan leen des na ba na sarax urbaine moom Hadjibou Soumaré ne leen la ma wax leer na de man affirmé wu ma confirmé wu ma dëggalu ma te it yoruma benn preuve damay wax nag en tant que chef bu mouvement politique te damay xaar ay tontu yu président de la république dama ne dama dégg ci salon yi ci baar ye kafe yi ñuy daal di waxtaanee di laam-laamee ni président Macky Sall jébbal na juróom-ñaari milliards ak juróom-ñeenti téeméeri millions Marine Le Pen waay waaye en ku dëkk ci réew mi nag ma am droit laaj président Macky Sall ndax dëgg la tribune yéen a kaay ni ki démb argument ci boppam la Cheikh Hadjibou Soumaré amul ci kanam kanamu enquêteurs yi ñetti laaj lañ ko laaj benn laa la wax mënu caa andi ay tontu libération yéen a kaay ne ma Cheikh bu Soumaré kay nee na leen man ci laaj laa nekkoon di yéen nekkoon it ci hypothèse dama doon laaj président Macky Sall ngir mu tontuma ma Abdoul Mbaye naan koon waay waay lii dëgg la yow amoo benn base bu dëgër boo xam ne ci nga daal di sukkandiku taxaw nag laaj say laaj yu yii la gën mooy nga taxaw publiquement daal di baalo àq ndax bu ëllëgee kenn ku ko bëgg defit du ko jéem l'enquête ko di jee naan maan ay excuse publique taxaw ci kanamu askan wépp ne dangaa daal boo moytul moo ci nar a génnee Cheikh Agibou Soumaré critique yéen kaay ne ma en tout cas mi ngi ci guddi gu bët setagul ni ki démb daal dinañ koy placé garde à vue moom Cheikh Agibou Soumaré la mu doon wax andiw ci benn firnde ndax nee na ay laaj la sam réew maa ngi de ku wax dem ndungu siin critique yéen kaay naan man déet Agibou Soumaré ma nga garde à vue laas yéen kaay demagul kay ndax moom Agibou ci boppam nee na affirmé wul ay question lay posé Ismaïla Madior Fall naan leen bu leen ñu tuumaal dama ne réew mii toog fi di wax lu la saf moo fiy jeex xëy rek fekk nit ci seeni kër tàbbal ci kaso bi yóbbuwunu ci kaso bi kenn kudul koo xam ne nag yaa ngi yëngal gësam réew mi di def loo xam ne naka sudul noonu la Ismaïla Madior Fall ne toog ci sab salon wax lu la saf mooy dakk ci réew mi ku deful kenn du la tëj waaye boo taxawee ci réew mi tuumaal góor yi góor yi am nañ droit porter la plainte loole mën na laa yóbbu kaso mooy dëgg le soleil yéen kaay daal di may nataal ak président Macky Sall boo xam ni ma ngay muuñ di siiñ yéen kaay bi mel ni ku naan maan moo yey de ndax Sénégal saa si tembe ci wàllug investissement def caa jëm kanam Walf Quotidien naan kon xanaa yëgul jafe-jafe ci réew mi ña ngay wax ay waxi malet loo xam ne yàgg naa am ci réew mi yàgg nañoo jël suñuy milliards di ko def ci male di dem bitim réew Walf ko di jeene ko waaye balaa ngay ree sàll tey laa lay xamal ne liste électorale yi nga xam ne nee nga koy réviser weer wi daal dinay tuut lool tey laa lay xamal yow sàll ngaari lam tooro Bourguédé ne la l'hôpital bu njum amul scanner amul cardiologie amul it fanuy fajee wopp broñoo sud ko di jeene ko président Macky Sall tey laa lay xamal ne ñaam wopp broñoo yi ña ngay dund jaxaannama ci réew mi te it sàll nga xam ne suukar manqué na ci réew mi koor gaa ngi ñëw yóbbaale liit yow kor Marème Faye Sall Sall ne bus tata yi daal dinañu yokk seenu paas defuk dikta goo xam ni maar day taali forcé nañu askan wi ne leen cent franc amatul yokk rek turbine yéen kaay naan kon bul dem ña ngay màggal ba tey ndax 8 mars weesu na moom Woré Sarr ak soxnay parti démocratique sénégalais naan seen ñaan ci bis la mooy Karim Meïssa Wade dikkaat ci réew mi Karim Meïssa Wade doonu candidat ci réew mi Karim Meïssa Wade jiite réew mi yéen kaay bi naan man gémmiñ ci Karim Meïssa Wade yéen kaay bi dee média bi naan man Maguette Sène daal dinay célébré soxna yi ci diwaanu gannaaw ba ko soxna ye defee seenu parrain xamal ko ni it ngeen mu doon ngir jàppale président Macky Sall ngir mu faluwaat 2024 njiital kud naan leen man it pare naa ngir daal di leen di taxaw mën mënal seen bopp moomal seen bopp te it am financement yoo xam ne dina mën a tax ngeen demal seen cëggal guy jaajëfal maire bu somoon ma nga xam ni moo dalal activité yi te naan jigéen ñeeg ndaw ñi daw leen ngeen bindu gaaw ci liste électorale bi ngir ngeen mën a matal seenu mbëbët fal président Macky Sall 2024 Walf ko quotidien naan xanaa déggu leen ma weer la ñu sàll ngaari lam toor a may ngir ñu mën a bindu ci liste yi tuuti lool le soleil yéen kaay nan man maître Ousmane Sey dem na avocat bu xara ñoon lool te man boole doomu aadama yi tribune sport naan kon bàyyi noo ki jafe xoolal ma fédération sénégalaise bu basketball bool si tembe day ci xëccoo la ñu nekk juróom benn ci club nee ñu maître Babacar Ndiaye dootuñu jiite nay leer club yi nga xam ne ñi ngi bokk ci CRBS daal dinañuy déposé ci ministère des sports benn demande boo xam ne dañoo bëgg saa si tembe ñu dakkal nag nañu bëgg a yi ndax nee ñu fédération bi moo bëgg tëgg élection président ba nekkit candidat bëgg faluwaat nan nga mën a nekkee buur di bu mi Mamadou Keita njiital basket académie naan dañoo bëgg nag Babacar Ndiaye neutre ndax nag saa si tembe mi ngi ci tànk ku yole teg sii te duñ ko nangu am na yom ci soppi ba bëgg nekkaat candidat duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax nag teg sii ci boppam daal dinay wane ni maître mënta doon candidat ci basket bi l'observateur naan man coow wàññi location gi tàmbalee naa andi ji xijaax gaaw ci réew mi lu toll ci ñeenti téeméer fanweer ak juróom benn ci ay plainte koy jot ci diggante bailleur yi ak ñañu luwee mbaadu nguur gi dafa wàññi ba pare seetaan askan weeg wàññi gi ñoom sénégalais yi ci seen biir di rayante ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoo jàmm